ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaan borom bi defal leen tawfiq waye tam defal leen taysir di nuyu tam tabarakallah borom kër gi cierna Hamidou Yero ni tam mi nga xamni mo nek ci technique bi di Samba Si ala kulli hal ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala lepp lo xamni ni bis ko ci ay ngeenel ci ay njariñ yal na na ko sunu borom subhanahu wa taala defal mu mel ni dellusiwaat nañu beneen yoon rek ci seen émission bi nga xam ni moo di xisasul anbiya xisasul anbiya nag moo di rek waxtaane jaar-jaari yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mbokk yi waxtaane jaar-jaari yonent yi alayhimu salaatu wasalaam dafa nekk di am solo ndax li na ci mën a jële ci ay bind ak li na ci mën a fàttalikoo ak li nga xamante ni danañu mën a xam fan teg suñu tànk mu mel ne ñu ngi woon ci yent yàlla Ibrahim alayhi salaam Ibrahim alayhi salaam di yenent boo xam ni moo di xalilu rahman di xaritu sunu borom subhanahu wa taala loolu rek doy na sëkk Ibrahima alayhi salaam bokk ci yenent yi waaye Ibrahima alayhi salaam. bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la yàlla tudd seen tur ci alquranul karim waaye Ibrahima alayhi salaam bokk ci ñi nga xam ni euh, ñoom la ñuy wooyee ulul asmi mina rusuli ulul asmi mina rusuli mooy ñi nga xam ni ñoo gën a dogg ci yonent yi alayhimu salaatu wa salaam mu mel ni Ibrahima alayhi salaam jamono bi nga xamante ni sunu borom subhanahu wa taala mi ngi koy yónni ci penc dafa fekk. Eh, nit ña di jaamu leneen lu bokkul ak sunu borom subhanahu wa taala te lool nag nekkul di lu baax nekkul di lu am njariñ waaye tam la ca gën a yéeme way juróom yu ko jur ci boppam bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo doon jaamu loolee te bokkul ak yàlla te moom itam bokkoon ci ñi doon liggéey xërëm yooyu di ko yet benn ci ay bant wala ci ay xeer di ko jaay nit ñi di ko jaamu yaakar ni man na leen jural njariñ te nak an nafu wa durru laysa min al bidan wa sudan dañuy japp ne kon li ñi wax njariñ ak li ñi wax lor mënul bayiko ci ku wéx mënul bayiko ci ku ñuul ci kenn rek la mëna bayiko modi sunu borom subhanahu wa taala e mu ñew nak wara commencé bi ci ay mbokki bopam loolu nak du lu ndax dafa mel ni dafa bokk ci doxaleenu yenent yi alayhi salaatu wasalaam kenn ku nekk boo dikkee di woote ñu ngay njëkk a woo moo di say mbokki bopp waa loolu olof di faal di wax ni mbay ci sa wewi tànk moo tax mbokk yi bu ñu delloo ci alquranul karim daañu gis ni ibrahima alayhi salaam lu mu am ci mbaax yulli na ko ngir rek bëgg aw nitam jub tegu ci yoonu siraatal mustaqim alquran mi ngi wax ni wazkur fil kitaabi ibrahim innahu kaana siddiqan nabiyya kon ibrahima alayhi salaam bu nu delloo ci alquran daanu gis ni ab yonent la waaye nag yàlla tagg na ko ci dëggu kon nekkoon na di ko dëggu waaye tam nekkoon na di ko dëggal woote borom bi subhanahu wa taala kon daañu gis ni sunu borom mi ngi fi mu jaar ak aw nitam waaye rawatina kii nga xamante ni moo di woy juram ndax njureel is qala li abi yaa abbati lima taabudu ma la yasma wala yubsir wala yuxni anka shay'a mu mel ni benn aaya boobu kese lu bari mi ngi ci biir lañ ci mën a jàggee kon ñëw na di woo baayam ci ak ñeewante waaye tam ànd ak yar waaye tam ànd dal mu ne ko yow sama baay lan moo tax ngay jaamu loo xam ni du dégg lan moo tax ngay jaamu loo xam ni du gis waaye lan moo tax ngay jaamu loo xam ni mënula indil benn njariñ loolu benn la ci ayat yi nga xamante ni dafay wane ni Ibrahima alayhi salaam bi muy woo waajuram mi ngi ko woo ci ak dal waaye tam mi ngi ko woo ci ab yar waaye tam mi ngi ko woo ci xikma mu nekk di loo am solo. buñ delluwaate ci biir mi ngi wax ak way jur bi naan ko yaa abati inni qad jaani min al maa lam yatika kon nag fa tabi'ni ahdika siratan sawiya mbokk yi lu am solo mu ni ko yow sama baay ah bëgg naa nga xam ni yàlla xamal na ma loo xamante ni yow xamaluloo ko waaw kon nag loolu dafay wane ni am na loo xam ne puso bu réer la mag mën na ko for waaye xale mën na ko for mu ne ko xat ja ani min al almi ma lam yatika yàlla xabal na ma loo xamante ni yow xamuloo ko kon nag topp ma ci lii ma lay wooye ndax nga mën a jub tegu ci yoonu siraatal mustaqim loolu itam benn la ci ayaat yooyu ci ni Ibrahima alayhi salaam doon wooye way juróom woowu bun delluwaat itam mi ngi koy wax ni ko yaa abati laa taabudi seytaan inna shaytaana kaana li rahmaani asiya mu nekk di lu am solo yow sama baay waxin bu daw yaram waxin boo xamante ni ne day feeñ ci biir waaye waxin boo xamante ni yar dafay feeñ ci biir comme ni ma ko waxoon ci weesu rek yow sama baay bu jaaw mukk seytaane ndax seytaane dafa moy boroomam te bëgg ba nga moy sa boroom loolu it benn aaya la ci ni Ibrahima dana wooye wooyu juram buñ daañu gis ni mi ngi wax ak moom ngay continuer di wax baay bi mu ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka min azabin am an yamassaka azabun min rahman fa takuna li sheytaani waliya yow sama baay dama ragal boo bàyyiwul lii nga nekk te mooy jaamu leneen lu bokkul ak yàlla mbugalum sunu boroom dana tegu ci sa kaw waaye mbokk yi bu nu seetloo baay bi woo na doom ji ci ak dal baay bi woona doom ji eh, doom ji woo na baay bi ci ak dal waaye doom ji woo na baay bi ci xikma waaye itam doom ji woo na baay bi ci ak ñeewante bëgg rek moo te ko ci yoonu njub lan la ko baay bi tontu mu ne ko araqibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wax junni maliya kon baay bi dafa mel ni ak doom ji bokkunu ab jubluwaay dem na sax wax ko ni ko soo bàyyiwul lii nga ñuy wooye day dana ñu la jam waaw yéen a la jam loolu nag nekkit doy waar mu mel ni kon baay bi moom ngay continuer nekk ci ak euh, li nga xamante ni moo di ak euh, njuumte waaye ak réer ak cànkote waaye ndeysaan ibrahima alayhi salaam ni ko salaamuna aleyk sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi xafiya kon baay bi doom ji xamal ni ko ni ko ah baax na dinaa la ñaanal yàlla mu jéggal la waaw ah, dinaa la ñaanal yàlla mu jéggal la yàlla gindi la yàlla teg la ci yoon waaye nag eh, yooyu yëpp nekk di loo xamante ni liñ ci mën a jàngate dafa bari bu fekkee gis nan yaa abati lima taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yuxni anka shay'an loolu dañ ciy jàngate ni waaw kayfa taabud yaa abati ilahan laa yasmaaka isa naadaytahu wala yubsiruka isa xtarabta minhu aw adbarta anhu mu ne ko yow sama baay lan moo tax ngay jaamul loo xam ne boo ko wooyee du la wuyu ndax du dégg lan moo tax ngay jaamu loo xamante ni même loo ko jige jege mënu laa gis même boo ko jigee boo wëlbatikoo wan ko ginnaaw mënu laa gis lan moo tax ngay jaamu lu mel noonu loolu nag bokkul ci xel kon li ngay jaamu dafa la wër di dégg boo ko wooyee li ngay jaamu nga sori nga jige dafa la war di gis waaye itam mu ni ko wala yajlibu laka nafaan aw yaddafu anka makruha yàlla joo xamante ni mënul andil njariñ maanaam mënu koo jaamu ba jaamu gi koy jaamu mu jural la njariñ yàlla joo xam ni mënu la fegal benn loraange maanaam bu fekkente ni am na lu doon ñëw ci sa kaw di musiba moom mënu la koo fajal yàlla ju mel noonu loo ciy jaamu kon dafa bëggoon mu jaamu yàlla joo xamante ni yooyu mu wax yépp bu ci nekk dana nekk te yàlla jooja comme yàlla ji nga xamante ni faatiri sabawaati wal ardi moo bind asamaan moo bind suuf mbokk yi bu ñëwee ci benn aaya ya abbati inni qad jaani min al ilmi maa lam yatika fattabiani ahdika siratan sawiya loolu itam daanañ ci mën a jàngate lu bare bare bare bari fa tabarakallah kon mbokk Euh, dañuy gis ni lam yabda ibrahim xiwaaruhu maa abihi bil xadiisi an gazarati ilmihi wa quwati xijjatihi wa shiddati zakaihi kama annahu lam yasif abaahu bil jahli waaw kon daanu gis ni kon ñëwul rek ŋàññi ko ñëwul rek xeeb ko ñëwul rek di ko doyadal wan ko ni maa la ëpp xam-xam wan ko ni nangam ak nangam waaye lépp loo xam ni waxee na ko ak moom dafa bëgg rek mu fekk si ko ci li nga xamante njub gi nga xamante ni eh, fa tabaarakallaahu ci la nekk mbokk yi waxaat ne ko yaa abati laa taabudi seytaan ay laa tutix amra seytaan yow sama papa bul jaamu seytaane bul jaamu seytaane lim ci dam mooy ni setan ni kenn waru ko jamu mu ko bul top seytaane bul top mukk ndigali ni ci weddi yalla gem weddi yalla bu ko weddi tam ci jamu ay xerem jamu len lu bokul ak yalla ndax inna shaytan kana lirahmani asiya ndax setan kat dafa moy boromam ngir lan ngir reey ci bagn ko jamu kon kep ko xamni top nga seytaane daf lay bewal moo tax mu bañ baay bi topp seytaane ci lam koy digal ngir ma mën koo jural li nga xam ne moo di ak weddi yàlla waaye tam mu jural ko ak jaamu ay xiram waaye tam mu jural ko ak rëy ci bañ a jaamu borom bi subhanahu wa nekk mbokk yi di am solo waaye itam daanu gis ni am na beneen yaa abati bu feeñ yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min rahman fa takuna ndeysaan li seytaani waliya lan la koy dawal moom Ibrahim alayhi lan lay dawal baayam ak lan la koy bañe bañal baayam nee na min suil aqiba mujj gu ñaaw parce que xam na ni seytaane jaamu ko mujj ga amul njariñ waaye xam na ne jaamu yàlla ak li jaamu yàlla lamboo mujj ga mu am njariñ wala aqibatu lil muttaqin lu am solo kon wal maana axaafu an tamuuta ala kufrika daf koy ragalloo di ko tiitloo mu dee ci ak weddi yàlla te nag nausu billah dee ci weddi yàlla loolu baaxul fa yuxillu bika azaballahi alim dafay tax nga jële ca mbugalum sunu boroom muy mbugal mu métti wa takuna xarinan li seytaan lënkoo góor lënkoo ak seytaan itam lim lay jural bil xuluudi fi niiraan moy tabbi sawara bokk yi kon dañ ñu gis ni iblis te ma di shaytané top ko ben njariñ newu ci waye nak weddi ko bañ ko top ci la njariñ nak bokk yi lolit nek di ay jangat yu am solo muy ayat yo xamanteni yu tedd la muy ayat yo xamanteni lepp lo xamanteni iman wa lepp lo xamanteni ci dal wa lepp lo xamanteni ci rafetal wa lepp lo xey ci ak ñewante Ibrahima alayhi salaam waqante na ko wala dox na digganteem ak baayam eh, bi nga xam ne moo di Azara waaye nag mal asaf Ibrahim dafa mel ni bokkul ak moom jubluwaay bokkul ak moom bëgg-bëgg bokkul ak moom xalaat mu ne ko la illam tantahi la arjumannaka bi maanaam faxrib an wajhi wab'ad anni tawilan waaye sori ma bul ma jege bul ma jege. waaw ndax yow sa gëm-gëm ak sama gëm-gëm bokkul istibqa li xayaatika in kunta turida najaat wax ma maliya mu xamal ko ni ko li nga bëgg mooy su fekkee bëgg nga continuer di dund bëgg nga fi yàgg bëgg nga nangam ak nangam sori ma ndax kat lii nga xamante ni moom ngay joyal di ko jëme sun suñu yàlla yi mën na laa jural musiba mën na laa jural safaan kon loolu la ko ibrahima ali euh, la la baayam tontu ibrahima alayhi salaam mu nekk di loo xamante ni e, fa tabaarakallaahu lu doy waar la nee bi bi haasihil jahaala ci gile réer gu metti talaqa arrajulu ad daawa ila al huda ibrahima alayhi salaam ah moom la am moom la gis moom la dajeeg ki nga xamante ni moo di baayam bi nga xam ne moo doon woo jëmee ko ci ak njub loolu nag nekk di yoo xamante ni ay wax la yoo xamante ni wax yu doy waar la waaye lu man di xew daal alxawlul muaddab almuhasab gis nañ daal ci kaddu yi nga xamante Ibrahima alayhi salaam yulli na ko jëmee ko ci baayam al muaddab nee na yar feeñ na ci al muhazzab nee na yar feeñ na ci waaye al iman feeñ na ci waaye wan na ko ni ko ah yow kat lii ngay nekk dafa mel ni xol bu wow mi ngi lay mi ngi lay moom nga ci mën a amee waaye tam safaan nga ci mën a amee. e bu ko defee kon mbokk yi Ibrahima alayhi salaam méngoog ak wooteem bu sel Ibrahima alayhi salaam mi ngoog ak dalam waaye Ibrahima alayhi salaam ak bëgg lu baax waaye ak bëggal ko aw nitam waaye ak bëggal ko aw wajuram waaye dafa mel ni aw nitam daal lu ëpp ci ñoom li Ibrahima gis gisuñu ko waaye itam wajuram li ëpp ci euh, wajuram li Ibrahima gis gisu ko ba tax na mu continuer ci ak sànkote ak ci yoon wi nga xamante ni mooy wam nekkoon loolu nag yéen ci yàlla musal kon daal mbokk yi la. tabaarakallaahu xisatu anbiya andi woon ci jaar-jaari ibrahima alayhi salaam xam naa danañu ko topp incha allah ci àjjuma bii di ñëw ci waxtu wi incha allah ñu wéy ak yéen fan la ibrahima alayhi salaam mujj ak way juróom boobu ak nitam ñoom in uridu ila al islah mastataatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh